ay fan rek des ñu dëgmal lii di tabaski wutum xar nag nekk loo xam ne moom dong moom mooy occupé ñi nga xam ñooy sénégalais ci seenu ko journée loolu yi itam occupé na place bu am solo ci bile événement te marché Ndoumbé Diop bu Diourbel ñi nga xam ne ñoom ñooy ñawkat yi ñi ngi waajal bu baax a baax bile bés. waa situation bi moom fi mu même dab rek mais ren alhamdulilah actuellement moom nit ñi ñu ngi yëg ne fi mu toll dëgg mën lañ tabaski nga tabaski mm, fii ci njaare moom dañuy yéex a jot commande ba nga xam ne pour nga réaliser commande yëpp du yomb. lu jëm ci modèles yi ak colin yi at mi nag moo xam jigéen wala góor modèles yi dafa wute waaye bu jiilee ci jigéen ñi tissu bi di lafia bokk na ci tissu bi ñu gën di ñawlu waaye nag ci góor ñi ñoom lu ñu gën a ràññeeku ren mooy modèle bi nga xam ne lu ñu duppee président jomaa yi. bu dee ci côté jigéen ñi moom tissu lafia yi lañ lañ lañ gën a jël ren. modèle Diomaye Faye bi moom. ren moom góor ñi jël nañ ko tellement li si dooleeku mooy double bi xew na. mooy double baat bi ñu koy wax xaftaan boobu xew na euh, bi ci ko mooy it euh, njamput bi xew na. mais ren moom ku bi moom yëpp ay ku bi prédicor la booy xool. dana ko jafe-jafe gi ñuy gën a rencontré ñoom tailleur yi nga xam ne mooy leen di jural yenn retard yi si liggéey mooy yeex a jot. gi ñuy jot ñaw yi pour dëgmal bi la tabaski ba tax na ñu ngi sàkku ci seeni client bu beneen te ñu daal di teel a def seeni commande